bu ngeen gisee daje bi nag xam ni am na lu màgg lu ñu yitteel lu kawee loo xamante ni moom moo waral jëwriñ yi yëpp daje muy assemblée général bi nga xamante ni mboolem taalibe Serigne Touba yi ak mboolem jullit yi nga xam ne ñoo ne ci Argentine ak li ko wër war a amal bisub 4 avril bi ñu dëgmal ngir waxtaane lu jëm ci liggéeyu kër Serigne Touba yi moo xam jënd giñ ko jënd te war ko tàmbali ak yeneen yi nga xam ne moom moo moo ci aju ak lu jëm ci liggéeyu Serigne Touba bi fii ci dëkk bi loolu moo waral jëwriñ yëpp dajaloo. ànd ak sëriñ Bamba Niang mi nga xam moom moo jiite organisation bi feggoog sëñ maam Thierno Amar ak sëriñ Xaadim Ndiaye mi nga xam moom moo fi teewal jëwriñ yi nga xam ñoo ne ci àll bi ànd ak sëriñ Sall mi nga xam moo yor commission finance bi waaye ci wet gi feggoog oustaz Dame mi nga xam ne moom moo moom moo yor li nga xam moom mooy commission culturelle bi ànd koog ñoom sëñ Xaadim Kan kon xam naa wax ji du mën a sori dañuy jox sëñ maam Thierno Amar mu ubbi bu defee su noppee ñu jox sëriñ Xaadim Ndiaye mi fi teewal waa àll bi bu noppee mu jox sëriñ Dame Cissé mi nga xam ni mu ngi suñu wet bu noppee jox suñ bàmba ñu tëj waxtaan wi bu gisee jataay bi nag ñu dellu siwaat muy assemblée générale bi nga xam ne si moom la ñuy waajal te fas yéene cee taxawal commencé liggéeyu kër sëñ Touba gi ak mboolem li nga xam ne aju woon na ci fédération bi te liggéey ko ci at bi yëpp war cee leeralaat war ko jàngataat moo war a jataay bi bu ngeen gisee sax defoon na benn benn jataay di waxoon na la deux lañ koy def waaye daf fekkoon na la deux bi biñ ko seetaatee. dafa dugganteeg séminaire de santé bi nga xam ne mbokku taalibe ci ñu bari dañuy génn moo tax ñu ñëwaat di leen wax ne dañ koy yóbbu ba la 4 muy altena waroon doon mu nekk ci àllarba ba muy la 4 avril incha allah di ci soññi nag kàddu yi nag kàddu yi soññi la du gudd di ci soññi mboolem mbokk taalibe gu nekk ci Touba Argentine moo xam ci biir dëkk bi moo xam ci province la di ci woo ñëpp rek murit bu nekk nag xam na li ci war muy 2000 pesos te yaakaar naa 2000 pesos kun koy woo ci liggéey sëñ Touba war na laa jaral ndax murit bu ne ci dëkk bi téléphone bi nga yor boo ko jaayee rek danga teg ba desal kon nag sëñ Tuubaa war nañu jaral lu ëpp kon nag ñi ngi soñ ñëpp di soññi mboolem ne ci àll bi nag woowuñu jëwriñ kese woowuñu biro bi kese woowuñu topp jëwriñ mboolem taaliba fi nekk te man ko fas ñi ngi sàkku nga teew incha allah bu ñu xëyee dañ ko commencé ba ngoon kon nag ñi ngi soññi mbokk taaliba yëpp xam naa damay gàttal foofu jox sama mbokki jëwriñ bu ko defee bu ñëwee ñu leeral alim min sharri shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuy kenn ku nekk ci tur ak sa sant te di leen ñaanal suñu kàddu yi mu fekk leen ci jàmm ah bu ngeen gisee kàddu yi nag dafa am bis bu rëy boo xam ne moo nekk suñu kanam ci kanamu murid yeeg taalibe yi nga xam ne ñi ngi ci Argentine gépp muy bidu bisu fédération bi euh, ñu war a def assemblée général war koo taxawal la 4 avril fii ci Buenos Aires ñu bokk nag di soññ mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ci daayira bi ñi ngi ci fédération bi ak fépp fu ñu fi mën di nekk ci Argentine ci Provincia yi la wala fu mu mën di nekk rek ñoo ngi leen di woote di leen soññ ak mbooloo ma nga xam ne ñoo nga fa nekk ñu ñëw ci bis bi ngir bis bi li ko tax a jóg mooy leeral li nga xam ne moom la euh, fédération bi liggéey ci at mi ak naal yi nga xam ne naal nañ ko mu jëm ci suñ kanam ak it maanaam lu jëm ci kër sëriñ tuubaa gi te loolu jar na kenn ku nekk dagg sa yitte ñëw ci ngir barkeelu ci def ci sa alal def ci sa yéene ak sa xel mu rafet loolu la ñuy woote di ko soññee ñoo ngi soññ ñi nga xam ne ñoo nekk ci Provincia yëpp ak biir dëkk bi wuñ kenn wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki yi mbokki taalibe yi fu ngeen mën a nekk ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi ak sahibul fadila Serigne Touba Serigne Mountakha Bachiru Mbacké di ñaan yàlla sunu borom mu yàgg fi loolu te wér ak njabootu Serigne Touba gépp ginnaaw loolu ñoo ngi e, ziar baax njiitu dawaayir bi wala njiitu fédération bi ci turu sa ñàqoo ba géey ñii ngi woote woote boo xam ne dafa jëm ci ensemble bu mag boo xam ne général lay tudd ñu koy war def fii le 4 avril incha allah bi ñu jëm di ci soññ suñu bopp di ci soññ mboolem fu taalibe Serigne Touba nekk rek ci turu fédération bi ñu teewee bis boobu ndax bis bu am solo la muy wàccaay wu jëm ci kër goo xam ne kërug lislaam di kër Cheikhul Khadim kon ginnaaw soññee boobu ñun ñi nga xam ne ñoo jiite diwaanu Daaru Xuddoos bépp rek ñoo ngi woo bépp buntu kër bu bokk ci diwaanu Daaru Xuddoos ñoo ngi leen di woo ci bis boobu ñu fànnoo ko te xam ne ndigal la te ndigal jëfe rek lu jëm ci ndigal euh, këri Sëriñ Tuubaa moom jëfe rek kon ñu ngi ñaan yàlla sunu borom ci turu fédération bi ak turu yëpp rek ñoo ngi leen ci leen soñ suñu bopp da ñaan yàlla ñu yegg ci ak jàmm te daj ci ak tawfeexi Cheikhul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu rahmatullah asalaamaaleykum mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar di leen baalu àq ginnaaw buñ leen jéggaloo di leen ñaanal yéen ñëpp ginnaaw buñ koy sàqu ci yéen di ñaanal sëñ Muntaxa Basir Mbàkke mu gën a yàgg gën a wér ba liggéey bi nga xam ni moom la naalal ngir maamam ju tedd ji mu def ci lu kaw njottam eh, bu ngeen gisee jotaay bii nag comme ni ko gaañu baax ñëpp waxee dara wundu ko rek lu dul liggéey bu mag bu tedd boo xam ni fas yéene nañ kaa amal ci dëkk bi ñu nekk muy Argentine muy kër sëñ Touba goo xam ni boobu ba léegi defe naa ne ay ati ati at ñu ngi ko bëgg ñun ñëpp kenn ku ci ne boo xëtoon xolom daanaka moom nga ciy fekk ginnaaw loolu nag ñu daje woon ñun ñëpp mbooleem daayira yu ne ci dëkk bi rawatina ñu nekk ci province yi amaloon fédération boo xam ni e, buñ ko nattee ci assemblée générale bi ñu jëm dañuy wax ne maanaam bu ñu yeggee ci le 4 avril la fédération boobu di mot at mboolem liggéey yi nga xam ne nag jaar na fi li ci gën a ràññeeku daa da caa bokk muy kër sëñ Touba gii nga xam ni e, bu woote bi dee fukk mun nañu wax ne juróom-ñett yëpp looloo ko tax a jukk e, ñu ci woo nag mboolem mboolem ku ne ci biir dëkk bi bawuñu kenn képp koo xam ne rek e, mbégub sëñ bi mooy sa mbég ñu ngi lay woo ci bis boobu bis boobu nag joxe nañ ci sas woo xam dañoo wax ni képp koo xam ne rek ab taalibe nga rawatina sax nag. nga doonub jullit nekk ci dëkk bi ndax kër sëñ Touba moom kenn ku ci ne xam na ni kërub jullit la rek wo sase nañ ci mille pesos yoo xam ni bopp bu ci ne eh, dalaa war liggéey boobu nag eh, bisub 4 avril boobu ñu koy amal programme bi moo ngi tàmbale 9h bu ñu xëyee la ca war a am yëpp waa administration bi incha allah xëy na du ñàkk ni ñoom danañ def yeneen i waxtaan yoo xam ni li li tegu ci kaw yii la wax programme na muy demee waaye daal xam nañ ni ñu ngay tàmbale programme bi diggante 9h. defe naa ne it bu ñu demee ba ay ba ba jul tirs ba noppi lépp loo xam ne rek lu fa jaaroon la lu fi war a jaar la ci waxtaan danañ ko waxtaanee waaye dëgg dëgg dëgg yille gi daal mooy kër sëñ Touba gi kër nag buñ ko dee wax kenn ku ci ne xam na ni ciment at fer moo koy moo koy amal buñ nee ciment ak ciment ak fer nag moom daanaka xel yëpp day dellu ci koppar kon ñu xam ne daje boobu liñ ci gën a ñor liñ ci gën a ñor bu weesoo waxtaan gi nga xam ne war nañ kaa waxtaan suñu biir mooy addi ji nga xam ne bëgg nañ kaa bëgg nañ bëgg nañ mu daje fa ngir ñu tàmbale liggéey bi fee nga xam ne nag fa lañ jënd pàq bi ginnaaw bu ñu góorgóorloo ba fexe ba dajale li ñuy dajale jënd pàq bi jàpp naa ni waa fédération bi nga xam sax waa administration bi nga xam ñoo yor kayit gi sax buñ ko doon lim dañuy wax ni lañ fa jënd war naa mot eh, ay hectares lay wax ndax ci yaatuwaay dëkk bi nag kenn ku ci ne xam na ni eh, li fi lu fi doon jar fukk rek jamono jii ñu toll mu ngi dem na ba ñaar fukk kon ñu ngi woo ci mbokk taalibe yëpp képp ku ñëw ci at ci ci ci ci ci ci daje ba rek nga fànnoo mille pesos yooyu nga xam ni moom lañ sase ba lu am ndax eh, defe naa ne sañu digganteeg sañ tubaay ci addiya amul na amul nat nat nattuwaay kon nag eh, ñu ngi gën a soññe foofu rek muy addiya ji te xam ni kenn ku ci ne ci ñun rek eh, sëñ bi defal na la loo xam ne sax doon di sa morom xéwal ñuy am nag ba tax. Eh, xëy na kenn ku ci ne defe ni yow kenn ku ci ne ci ñun rek yàgg ngaa dégg ni sëñ Abdou Lahad daan wax ne loo fi gis rek mooma te ba muy ñaan kenn ku musaan taxaw ci ginnaaw am naan amin amul kon nag nañ delloo mbir mi sëñ Touba ñun waa Argentine nag liñ ko mën a delloo jukkal mooy kër gii ñu taxaw ci ñun ñëpp sañu kémta lay kattan dara du ko defar nag ay jinne du ñëw wàcc di ko defar ay malaaka duñ wàcc di ko defar ay taalibi sëñ Touba ñoo koy defar ni ko sëñ Touba amee ci yeneen dëkk ya la koy defar nag mooy ñu làmb sañu poos yi daj te xam ni maanaam sañ Tuubaa moo moo moom li ne ci poos yi moom borom poos yi moom lépp ñu jël ko fas yéene kaay yu teg ko ci taabal bi buñ ca jugee defar fii loo xam ne tey jii fu waaye toll ci àdduna bi rek da ngay xam ni kat waa Argentine ñi wax dëgg yàlla lii ñu defal ni pas-pas la moom daal château li ñuy wax naan château daal moom la ñu bëgg a tabax ci dëkk bi te nag sëñ Tuubaa moom dara jomb ko dara jomb ko lu fi riir ba fi bay rafet bañ koy askanel ku mën a doon rek ñun ñëpp xam nañ ni sëñ waa la gën a jekk ndax ndax ndax moo fi def lu jar loolu. waaw mbokk taalibe yi kon ñoo ko déggandoo ku déglu woote boobu rek xam ni maanaam sab soññee ngi ci biir comme noonu ko jëriñ waxee ñun taalibe yi nañ ko fànnoo noonu fas ku yéenee jëfe noonu te ñaan yàlla suñu borom defal ñu tawfeex ak taysiir bañ àgg ca daje ba ak jàmm muy 4 avril tombeek bisub àllarba ci weer wii di ñëw incha allahu taala jërë ngeen jëf.